ñaanal semaine euh, jàmm ak suñuy programme di leen euh, ziar bu baax a baax euh, di ñëwaat ci Soir d'info ci waxtu wi ci télévision Futurs Médias bu ko defee rek ñu yaatal ci li nga xamante ne mooy ci jamono ji di gouvernement bu bees bi nga xamante ne président Macky Sall fal na ko démb daañ ci ñëw waxaale également ci yenn ci nombo tànk yi nga xam ni jox nañ ko yenn kilifa yi bokk na ci bu mel nii bu Idrissa Seck nga xam ni coow li bëri na loolu gannaaw ba ñu ko tabbee njiitu président conseil économique social conseil environnemental daañu ko yaatal ci kanam tuuti ak suñuy gan kenn ki ñu ngi koy euh, taaxirlu mu di Yakham mbay nekk directeur général bu quotidien Le Soleil nekk également membre APR xibaar yi buñ ci jàllee itam ak rédaction bi buñ ci noppee ñu daal di dalal Moustapha sare nga xam ni mooy directeur de l'école du parti bu PASTEF ñu daal di waxtaan rek ni ma ko junjee léegi ci yenn ponk yi nga xamante ne moo soxal wàllu actualité altine bu jot ñu ànd ak pap Djibril Fall Pape maa ngi lay delloo ziar Aram kontaan trop ci retrouver la ci plateau Soir d'Info di nuyu sénégalais ñi seetaan yëpp si biir réew mi ak si bitim réew euh, di ñaan yàlla suñu borom ñi nekk si hôpital yi suñu borom defal leen tawféex. Euh, ñi nga xamante ni tamit gis nga ko ci weekend bi weekend très macabre. Mm-hmm. ñi nga xam ñoo ñàkk seen bakkan ci tali bi. ñaan sunu borom mu yërëm leen ak ñi nga xamante ni tamit mooy gone yooyu nga xamante ni ñu bëggee Sénégal. ci biir géej gi sunu borom moom seen bakkan ñu ñaan sunu borom moom musal leen te ñuy gën a ñaax autorités yi ñu gën a jël en charge problématique yooyu ba ñooñu am espoir ak opportunité toog ci réew mi. président woowu yow xam nga bu la président woowul du ma woo. bu <laughs> njëkkatu bu njëkkatu parce que euh, gouvernement bi finalement ak euh, yi nga xamante ne gis nañ ko ci ay surprise euh, yaakaar naa ni kuñ ne ndax woowu la waru la jaaxal mais yow lan nga jàngate li nga xamante ne nii gis nga ko ci ministère yu bees bu bees bi laay wax déjà muy artisanat ak transformation secteur informel mais également ñu bees yi nga xam ni dugg nañ ak it ñi nga xamante ni génn nañ leen mu di ay kilifa yoo xamante ni ils ne sont oui globalement li ñuy <clears throat> retenir au-delà des personnes parce que pour man euh, au-delà des personnes enjeu yi moom moo gën a ëpp solo c'est-à-dire que dafa am ci attente yoo xamante dañ ko amoon wax nga ko léegi li nga souligné dafa am solo muy wàllu artisanat ak la transformation du secteur informel la place du secteur privé. Mm. la place de l'industrie. la place aussi ci secteur primaire yi muy agriculture muy pêche muy élevage la place de l'économie numérique euh, gis nañ ñu lëkkale ko ak télécommunication jox ko kii nga xamante ni moom moo Yankhoba Diattara on attend la feuille de route parce que démb gis nañ ne euh, kuñ ci kuñ ci posé question rek dangay wax ne euh, maa ngi xaar sama fiche de post donc apparemment ñoom amaguñ seen fiche de post te fiche de post yi rek moom moo ñu mën a permettre ñu xam lan lañ leen sant quelles sont les missions est-ce que bu ñu leen assigné ay missions dinañ leen ko dinañ leen jox moyens nga xamante ni moom la laaj ngir ñu mën ko doxal mais encore une fois le contexte il est assez lourd donc et la question pertinente mooy pourquoi le président a jugé utile de changer un gouvernement wax na ne euh, démb boo dégloo Seydou Gueye ci esprit gouvernement bi changement bi dafa wax ne rajeunissement hmm. wax ne aussi un gouvernement de combat euh, rajeunissement bi xaw ma ndax gis nga ko mais man gisuma ko euh, un gouvernement de combat c'est l'avenir qui nous le dira ak par ak ñoom ñi nga xamante ni tamit parce que un gouvernement aussi day ñëw pour appliquer li nga xamante ni moom mooy euh, la vision du chef de l'État donc on attend une vision on attend la direction par rapport ak li nga xamante ni moom mooy euh, le contexte mooy de relance économique mm-hmm. déjà évaluer sunu résilience bi pour ensuite se projeter sur une relance euh, boo xamante ni tey nous sommes très attendus parce que wax nañ ne ñaari at yi ñu jëm du yomb te pour cela il faut que ñu xool nag nan la ñuy def ba mën ko gérer ba mën ci génn dellu retrouver une une bonne santé de notre économie. alors dina taxaw ci ñi génn naam bu dee relance bi am na solo dinañ ci dellu soit mais ñi génn. Mm. dañu ci bàyyi xel euh, te ñooñu ku ci nekk euh, prêté nañ la ay ambition nekk euh, président moo xam Amadou Ba coow li mu indi ci APR ak xëccoo gi sax li amoon ci biir APR bëri na. Aminata Touré également Mouhamadou Makhtar Cissé Aly Ngouille Ndiaye Omar Youm donc mën nañu euh, wax ne ñooñu ñëpp ñu jege woon président lañu mais malgré tey ci contexte bi ñu toll ak relance bi teewul teggi na leen ba ci Mouhamed Boun Abdallah Dionne délit d'ambition kenn mënu ko reprocher kenn c'est-à-dire que kenn mënoo tere kenn am ambition président Macky Sall bi muy nekk ak Abdoulaye Wade la commencé di xalaat ne war na am ambition présidentielle ñeneen ak ñeneen ak ñeneen euh, di nga nekk ak nit et puis à chaque fois que nga yar ay nit nekk ak ñoom def huit ans au pouvoir c'est vrai que mën nga am autour de toi des présidentiables parce que xam maîtriser nañ kii bi dox nañ ci donc mënoo reprocher nit rek ne dafa bëgg nguur tax nga nga kii ko léegi nag li taxoon mu wax ne bëggul wax ne du nekk candidat en 2024 alors que man dama jàpp sax dund moom mooy wax ne dafa a nekk candidat ou pas c'est mm. la constitution qui doit donc bu fekkee ne dafa moom moo wax ne bu ma waxee ne du ma nekk candidat léegi gaayam yi dootuñu liggéey donc xëy na gaa yooyu lay identifier bar benn par benn di leen damaa jàpp sax ne képp koo xamante da nga ci am ambition nga jàpp ne ambition boobu c'est incompatible ak liggéeyal réew mi parce que tu n'as plus le temps parce que yaa ngi nekk def politique mais vaut mieux prendre la tangente nga génn dem xeex def sa ambition politique yaa ngi dégg donc loolu tamit euh, su fekkee ne loolu la on est d'accord bu fekkee ne tamit dafa am insuffisance de résultats parce que li ñu yaakaaroon ci yow amuñu ko ci yow loolu tamit c'est très normal nous sommes 16 millions de Sénégalais. yoo xamante ni mën nañ ci trouver 33 comme 33 la ak ñoo xamante ni ñu xereñ lañ ci seen domaine mën a liggéey réew mi ba nga xamante ni gisuma fi kenn ku indispensable encore une fois. mais li nga gis tey ci ah. ci bi euh, ndax loolu nga doon xaar. man ni ñu ko ni ñu ay ministères xam nga bu ñu xëyee ne xam nga bu ñu xëyee ne dañoo def dissolution man remaniement la doon xaar. Mhm. à l'arrivée on a eu un réaménagement. c'est-à-dire que ah man man foogoon naa ne day nekk un changement bi ma déggee Seydou Gueye di wax di wax ne dinañ am rajeunissement dinañ am euh, un gouvernement de combat dinañ am un gouvernement boo xam dañuy consacrer définitivement li nga xamante ni moom mooy la compétence. au détriment mais très sincèrement hein, franchement c'est-à-dire que à l'arrivée euh, par exemple man jàppoon naa ne secteur bu. mel ni justice dalal nañ fii ba tay syndicat yi mu paralysé wu pendant des foogoon naa ne dinañu changé ngir jàpp ne war na mën a indi souffle voilà donc boo jëlee secteur bu mel nii euh, euh, environnement avec tout ce qui s'est passé le débat sur les oryx et mm-hmm. tout euh, te jàpp naa ne sax très sincèrement secteur la yoo xamante ni wax naa ko fi euh, lu dul benn du ñaar dafa nekk secteur yoo xam dañ koy jox ay militants de l' environnement ñoo xamante ni seen passion environnement la ñoo xamante ni am nañ yéene faire changer les choses ñoo xamante ni seen dund yëpp dañ ko consacré woon à ça parce que tey jii dafa moderne ba nga xamante ni euh, bokk na ci yi nga xam non seulement c'est stratégique mais dafa transversal donc ma jàpp ne on pouvait trouver mieux mais euh, dans ce gouvernement on a senti qu'on a beaucoup géré on a beaucoup respecté les équilibres ñoom seen i que dañuy wax tout le temps ne les politiciens dañuy wax ne un gouvernement est éminemment politique donc et malheureusement quand il est éminemment politique soo moytuwul rek la technocratie daf ci daf ci dialogue bi finalement porte na ses fruits. encore une fois euh, bëgguma ñu jàpp ne sunu réew institutionnaliser bi ñu bëgg a institutionnaliser dialogue en dehors des cercles euh, euh, formels yi nga xamante ni moom la ñu mais assemblée nationale ça sert quoi. le haut conseil des collectivité territoriales ça devrait servir à quoi le conseil économique social environnemental sa doit servir à quoi nga jël euh, l'association des maire du Sénégal ça sa à dire que foofu. il faudrait que yenn institutions yi déjà seen liggéey mu leer ci xelu askan. foofu la ñu war a xaar la dialogue foofu la ñu war a xaar la dialogue maintenant quand tu sors de de de de du de d'une élection boo xamante nit ñi dañu voté xëy liggéey yi. Mhm. amul insurrection amul dara. amuñu guerre civile amuñu dara alhamdulilahi rabbil alamin nga bëgg a gëmloo nit ñi ne forcément il faut que nga dialoguer ak ñoo xamante ni dañu yor seen association privée muy les partis politiques yoo xamante ni yow dañu la jox ne la dérouleel doxalal donc tu ne te dois pas sentir obligé ne dangay dem pour jëli ñoo xamante ni xëy na euh, nguur gi euh, askan bi joxu leen confiance askan bi dana leen ñu yéen wóoluwuma leen yow la ñu wóolu doxalal nga définir la politique de la nation mën nga dem nag mais li may bañ daal mën nga dem ci ñooñu jëli ci ay borom xam-xam indi mais li ma bañ mooy ay logique de partage du pouvoir parce que il a suffisamment de gens avec qui il a gagné mooy la coalition Macky 2012 la mm. coalition Benno Bokk Yaakaar mais il a suffisamment de partenaires il a suffisamment de partenaire bokk naa ci ñi nga xamante ni aussi dañu xalaat ne suñu réew on a beaucoup plus de besoin de proposants que ma ne suñu réew yi nga xam dañ koy tabax mën nañu nekk dans une opposition farouche systématique nihiliste comme nii nga xamante ni noonu la ñu koy defee dama jàpp ne war nañu war a gën a mën a liggéey ba nga xamante ni kenn koo xamante ni nekk na au pouvoir dina mën a dem jëli compétence fu mën di nekk te ñooñu it dinañ am benn force de proposition boo xamante ni dinañ ko indi ngir mbir yi gën a baax bàyyi ñi nga xamante ni dañuy ñaan que le déluge. que ça soit le déluge que ki fi nekk lépp dara du baax no war nañu mën a nekk dans une opposition constructive objective dimbali ki fi nekk mais soxlawul du du pour ma dimbali ko foog ma nekk ci biir mën nga nekk ci biti di ko jox say xalaat mën nga nekk si biti di di xool nan la ñuy organiser le jeu démocratique parce que le jeu démocratique doit être organisé tey ji qui va demander au ministre de l'intérieur de de de de de de mieux revoir le fichier électoral. Mmh. est-ce que Idrissa Seck fi mu nekk tey dafay continuer am les mêmes exigences avec. mais da wax léegi mën nga mën nga nekk opposition waaye tewul mën nga jàpp tamit ci liggéey bi nga xamante ni mais yaa ngi koy conforté également instant bi ci position bu nekk ndax bañ ko déggee mhm. euh, naam bu dee dégg-dégg bi naq di woon na trop mu dugg ci nopp yi loolu la joxe comme argument mhm. te ku mel ni Idrissa Seck nit ñi mun ñu gëm ne bon en poste comme conseil économique social environnemental loolu rek ka tax a jóg xam nga Idrissa dafa bokkoon ci ne bon on attend peut-être que est-ce que elle pour il pourra faire mieux que Aminata Touré est-ce que dina mën a def mieux que Aminata Touré Aminata Touré kenn du négocier kenn du discuter ci compétence am. Mm. kenn du discuter ci xereñam kenn du discuter aussi ci euh, mën liggéeyam parce que euh, liggéey na feneen euh, wane na njàmbarteem wane na xam-xamam donc est-ce que xam-xam rek moo tax ñu jëlee ko fa néew xam-xam. wala ndax dañ ko fa jëlee pour pour des raisons politiciennes. mais ak lu mën di am est-ce que Idrissa dina partager ak sénégalais yi sa lettre de mission. lan lañ koy sant au niveau du conseil économique social environnemental boo xamante ni pendant longtemps ci biir mbas mi les gens ont demandé même sa dissolution parce que mhm. dañu jàpp ne amul benn njëriñ est-ce que c'était une proposition populiste ou pas Idrissa lui-même demandait dans son programme IDI 2019 de supprimer le haut conseil des collectivités locales et le conseil économique social environnemental parce que jàpp na ne euh, c'est des institutions day jël xaalis bu bari te amul jeexital ci li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy kii maintenant am na beneen aspect boo xamante ni aussi c'est important mooy Sénégal Afrique il faut que ñu bàyyi ne bàyyi bàyyi ne ku nekk premier ministre mënatoo am beneen poste bu dul président de la république. Hmm. Idrissa tey waroon na mën a nangu bu fekkee ne liggéeyal Sénégal rek moo ko ñor mais nekk ministre. non mais wax na moom yi mu bëggoon wala wala mu nekk wala mu nekk. wax na wax na wax na wax na nekk député wax na nekk euh, conseiller municipal. Thiès mais seetlu woon mais seetlu woon également nekk président mais ñi fi nekkoon ministre wala premier ministre ñu ci bëri sax bu ñu leen falee député du ñu amal njëriñ askan bi parce que du ñu dem assemblée nationale on a vu le cas de Pape Diop ah. et d' personnes. yi ñu ne moom instant bi sax moom ak Decroix. Ah. ñu ngi pale euh, instant bi président moo leen convoqué lan lañu fay jëlee on ne sait pas trop. mais xibaar bu ñu jot mais quoi qu'il en soit au delà des personnes Aram li nit ñi di xaar. mooy ban réponse la ñuy indi ci xale yi nga xamante ni ñoo ngi jël gaal yi di dem ci géej gi di dee ci ndox mi réponse bi ñuy xaar mooy euh, réponse ban la ñuy xaar ci chômage bi nga xamante ni gis nga fan yi yëpp yaa ngi invité ay nit yoo xamante ni ñoo ngi ñëw di discuté ci taux chômage bi nga xamante ni jarul ñuy xaar baromètre organisation internationale du travail kenn ku ci nekk li la wër yëpp ay chômeur la yaa ngi dégg donc c'est ça la réalité aussi euh, par rapport au li nga xamante ni moom mooy nekk bi donc je pense que ne loolu mooy les grands chantiers léegi ce qu'on attend du gouvernement c'est la feuille de route c'est les axes prioritaires est-ce que dañuy maintenir le PAP 2 za mooy programme euh, d'action prioritaire ajuster et accélérer boobu ndax dañ koy bonifier ndax ñoom gouvernement bi dañ leen di santaat ñu liggéey liggéeyaat ci beneen programme de développement ndax noon la ko président waxoon ci deuxième allocution ci mbas mi ba nga xamante ni dinañ mën a wane fan la Sénégal jëm du point de vue de la relance économique parce que encore une fois le chantier il est encore énorme te contexte bi ñu nekk yombul. politiquement parlant foog ñu taxaw si euh, deal bi nga xamante ne ñu ngi ko doon rumandaat boobaak léegi diggante président Macky Sall ak euh, Idrissa Seck. ndax tey dafa conforté wu wala derrière am na benn lecture boo xamante ne def nga ko jàpp ni xëy na am na ñoom ñaar fu ñu déggoowee ndax nag troisième mandat moom ku koy wax ci réew bi dañ koy bañ mais certainement nekk na loo xamante ne sa profile à l'horizon te du ñàkk ñoom ñaar xëy na waxtaan ci. mooy sauf que man li ma jàpp mooy Idrissa Seck jàpp na ne président Macky Sall 2024 day jeexal man loolu laa jàpp léegi nag euh, xam nga Idrissa sax bi ñu fi génnee Karim Wade dafa waxoon ne. c'était un deal international. Mm-hmm. bu doon impliqué Qatar ak Sénégal. léegi loolu aussi ñoo ngi ko ci xaar ba tey ndax dafa continuer jàpp ne war na mën a liggéey koo xamante ni dafa def un deal international sur le dos des Sénégalais. yaa ngi dégg. donc ñun ñoo ngi doon wax protocole am na ñu ne y a eu de Conakry am na ñu ne y a eu le protocole de Rebeuss. Mm-hmm. bon finalement léegi xanaa réew mi duñ ko continuer di yor nii ci ay deal ki protocole rek. c'est-à-dire que exigence bi nga xamante ni moom la ñu soxla aujourd'hui mooy une transparence par rapport à l'action publique par rapport au choix des hommes politiques te loolu mu ngi commencé ci ñi ñu àndal ci parti politique démb da nga leen di yërëm booy xool réseaux sociaux yi parce que ñu ci bari. justement ñu nag ñoom a ci bokk yam xam nga nit nit dinañ ko tabb ci poste. Mm. nga dégg ñii na ko waaw góor ñee na ko du courage ñeneen jàpp ci mais unanimement en tout cas soo déggee li personne ne comprend li nga xamante ne nii moo xew. mais parce que dafa bette épisode yi dafa jege. mais parce que dafa bette mais parce que dafa bette. dafa bette. bett changement en profondeur président doon wax Idrissa Seck la waroon nekk. parce que ñeneen ñi bon ñu gisoon leen ci gouvernement bi mi ngi doon feeñ. c'était prévisible mais au moins. lii saa su benn Aram dama lay laaj benn question. mooy quel est l'impact du conseil économique social environnemental dans ton quotidien. Mhm. on le sent très sincèrement mes ami conseillers yi nekk foofu noonu ci kur ci kuréel googu c'est-à-dire que bi mbas mi ñëwee ak yeneen épisodes yi ñëw yëpp ban lan mooy seen contribution ci njàng mi lan mooy seen contribution ci émigration clandestine bi pour mu dañ lan mooy seen contribution ci chômage bi lan mooy seen contribution ci sunu territoire yi nga xamante ni exode rural bi mënul arrêté c'est-à-dire man su ma xamee seen contribution ci loolu ba pare après ñu mën a xam Idrissa lan la fay def yi ak ban jeexital la fay amee. yaa ngi de il ne s'agit tey ji par exemple c'est la même question par rapport au, au conseil des collectivités territoriales oui. moi je veux bien mais de plus en plus dañuy conforter sénégalais yi ci ne c'est des institutions qui ont été créées pour caser pour recaser ay ay ay militants politiques même bu fekkee ne am na une technocratie mais technocratie ba fa nekk lu ñu mën di liggéey tamit franchement pour mu am impact sur le cours des choses dafay jafe trop. la suite du chef de de bi la yoon xanaa leer na ndax dañ doon jiixi jàpp. entre ki nekk deuxième ci présidentielle bi ak euh, ki nga xamante ne ni moo am euh, majorité. si biir assemblée nationale sauf que ça règle sauf que ça règle toujours pas le problème. Sonko tey nekk. Sonko moom nee na kenn du chef am ci opposition bi. waaw loolu loolu yàgg na ko wax. yoon bi dafa mel ni xàllal nañ ko ndax ni Idrissa Seck taxawee mooy ne rallié wu na ci li majorité bi di doxal. oui sauf que statut chef de l'opposition tamit ma ngi ci dialogue ba ba tey ñu koy waxtaane c'est-à-dire que ba tey critères yi d'accord te loolu yëpp tamit dafay indi sunu sunu dafay indi sunu galgalu politique yi nga xamante ni ñoo ngi koy defante ci seen biir franchement ce qui m'intéresse man mooy le citoyen nit ki nga xamante ni moom moo nekk euh, mooy askan bi moom ban place la am ci débat boobu. Mhm. ban place la am ci débat d'orientation bi ci wàllu économie ci wàllu sociale sur le plan social tey waaw sur sur sur les autres aspects yi nga xamante ni tey jii mbas mi wane na ne mbas mi daf ñu wax nañu amatuñ droit def politique politicienne mbas mi daf ñu wan ne amatuñu on a plus le temps ñoom dañ leen di yónni yàkkamti leen. cest dire dañ leen yónni yàkkamti leen ils n'ont plus le droit nekk ci ay calcule politicien parce que nit ñi nekkatuñ ci loolu li ñu bëgg tey mooy. débat démocratique bi leer ay affaire fichier électoral bu fekkee ne ñoom seen ànd mën na leer loolu définitivement ba nga xamante ni euh, bu ñu jëmaatee ci élection 2024 yi duñ fi amaat ay nit yu dee parce que en 2012 lu topp ci lu ëpp fukki nit dee nañ. Mm-hmm. parce que rek kii nee na tey doo fi toog man maay toog loolu rek la woon. donc gis nañ ce qui se passe nous sommes dans un contexte aussi euh, sous-régional assez compliqué gis nañ ce qui se passe en Guinée actuellement kenn ñemewu ci yee yàbbi pourtant c'est le c'est le voisinage gis nañ li xew Côte d'Ivoire tey jii kenn ñemewu ci yee yàbbi loolu mooy euh, euh, urgence yi nga xamante ni moom la ñu am nañu est-ce que dinañ régler définitivement ces questions la pour man c'est ça qui est important su fekkee ne nag seen ànd mënul régler question yooyu que encore une fois ñoom dinañu waat ci seen i schéma lijjantiwaat seen i mbir réglé waat seeni i problème parce que on a fait ba ban opposition finalement lan moo ci des fii ñi bañoon rek peut-être ci dialogue bi xanaa ngay gisaat mu mel ni PDS ak Pastef mais tey Idrissa Seck poids bi nga xamante ne ñu ngi ko doon nangu ci biir opposition mel na ni tey euh, poids boobu noonu moom yàq na ko finalement Euh, naka euh, la nit ñi mën a comprendre li mu doxalee. parce que hyper plus qu'il n'a sauf que Idrissa Seck Idy 2019 c' était la coalition Idy 2019. oui c' était une coalition de coalition. coalition yoo xam ne Khalifa Sall. donc euh, y avait tout le monde donc son poids réel intrinsèque aussi c' est encore débat ça fait débat aussi. ñaata la Idrissa di poser réellement léegi beneen question bi mooy à quand les élections locales. Mm-hmm. ak ban taxawaay lañ ci am ak ñoom nan la ñuy demee ci élections locales yi. donc je pense que le président continue d'avoir des soucis ah moo gën a ëpp problème ñëpp parce que bu ñu demee ci élection locale nan lay gérer waat lii est-ce que dafay migrer léegi bàyyi Benno Bokk Yaakaar bàyyi APR bàyyi coalition Macky 2012 dem trouver waat beneen cadre politique wala ndax ñii dañuy ñëw duggaat fii cadre politique parce que les gars de Macky 2019 aussi peut-être qu'ils n'ont pas dit euh, de Idy peut-être qu'ils n'ont pas encore dit na am na ñoo xamante ni ñoo ngi waaw ah, donc euh, waxuma ne dugg bi baaxul mais dama ne Sénégal fi mu toll mënatuñu continuer di nommer ay nit aram ñuy régler seeni problème di bàyyi ak sénégalais yi seen problème c'est ça qui ne plus acceptable ce n'est plus possible pour profiter des privilèges du pouvoir mm-hmm. mais bàyyi nit ñi ak seeni jafe-jafe ak seeni soxla donc beneen gouvernement ñëwaat daal ne dinaa régler problème mu jeunes dina dinaa régler problème mu femmes dina dinaa régler problème mu kii donc alors que. defaat encore ay engagements. alors qu'on n'est même pas capable de de maintenir en vie des oryx c'est ça paraît que ça peut être très compliqué. <laughs> alors dafay taxaw fenn euh, Idrissa Seck mooy dauphin président Macky Sall 2024 wala Pape waaw wala déet. non mënuma wax waaw wala déet parce que ñi àndoon ak président su fekkee président Macky Sall ñi mu àndaloon amu ci kenn confiance. encore une fois c' est pas au président de la. c' est une question de confiance wala. c' est pas dafay clignoter à droite fekk am na leneen lu mu teg c' à Macky de choisir son successeur nous sommes en démocratie. mën na am yéene waaye démocratie sunu système bi ñu yor ba fii may wax ak yow. jàpp naa ne kii nga xamante ni moom la ñuy tànn mu war a nekk président du Sénégal à partir en 2024 ce sont les Sénégalais seulement qui choisissent. mais ci parti yi ci parti yi amuñu boog Sénégal ay primaire comme ni ñu koy gisee ci yenn dëkk yi tànn bokk njiit boo xam ne nañ ko jëlee ci biir parti bi nit ñi ànd ci mais ñi nga wax léegi ñi nga tudd léegi ne génne nañ leen muy Omar Youm muy ah, mais ñooñu génnuñu après seen lendemain ah ñooñu ah. seen lendemain politique ils n'ont pas encore dit leur dernier mot voilà peut-être que dans les jours à venir dinañ ci def ñenn ñi ay ministre d'État qui sait contenté leen ak ay ministre d'État ah, ñu taxaw ci ci ci ci leneen loo xamante ne nii am na am na solo Euh, c'est-à-dire le discours euh, politique peut-être que dañ koy dañ koy ñàkkal fayda ni ñuy tourner en dérision yenn ci ay kàddu ba ndaw yi ñëpp di ko partager yenn saa yi si si si réseaux sociaux yi euh, ban modèle la ñu nekk di enseigner instant bi suñu ndaw yi. non xam nga ci parti politique yi moom loolu wax nañ ko fi ba tàyyi c'est-à-dire que aujourd'hui bu fekkee ne ci formation idéologique la bu fekkee ne ci yooyu la très sincèrement ñan nga gis ñu fi dóorante ay. pour kurfeñ jamono bu nekk mooy ñi nga xam ñoo nekk ci kaw mhm. c'est-à-dire que pour man le militantisme dafa am beneen connotation beneen charge bu mu am léegi waaw mooy euh, ndax maa ngi gis sama bopp ci li ñu yor wala gisuma ci sama bopp donc finalement moo tax on est obligé de trouver des moyens de voies et moyens pour ferrer tout le monde mhm. parce que koo ferrewul rek soo moytul mu dem yoonam waaw c'est-à-dire gëmul idéal bi gëmul na yow war nga mbir yi pour l'intérêt général te loolu nag moom mooy euh, c'est-à-dire que moom loolu mooy militantisme dëgg koo xamante ni il est acquis ci benn idéal benn vision benn nanga mais les militants de plus en plus duñ laaj sax lan mooy vision bi duñ laajte sax lan mooy idéal bi ngay défendre duñ laajte sax lan moo la yëkkati duñ la laaj fan nga egg ci xeex égal inégalité sociale fan nga toll ci xeex inéquité sociale duñ la ko laaj mais koo ci wutal poste mu commencé régler yenn problème am après yoonam nekkatul sur yeneen militants yi bu ñu attaqué sax danaan leen noo xaar leen seen wàll dina ñëw moo tax de plus en plus les gens rappellent au président de la république di ko wane carte de membre 2008 ak 2009 yi di ko fàttali ne ko nous étions là carte bi gis nga ni mu xuuree parce que yàgg nañ fi carte de membre bi donc euh, le débat se pose un peu partout et à chaque fois qu'on fait des choix ñu ne pourquoi pas man pourquoi pas qui pourquoi pas qui donc gis nga euh, ça se un peu partout comme donc il y a un de formation bu boo xamante ni war nañ ko def loolu la loolu gëm naa ko. poste ministère de de l'intérieur suñu taxawee foofu gis nañu également euh, lors du dialogue. Ah. opposition bi insisté woon ci ñu tànn koo xamante ne ni c'est une personnalité neutre ndax loolu nga gis tey ci Antoine Félix Diome. mën nañoo wax ne c'est un commis de l'État à la base il a eu à servir l'État mais il a géré aussi des dossiers très sensibles et compliqués. c'est-à-dire forcément nit ki dina gérer ay dossiers sensibles et compliqués mais du point de vue relation personnelle euh, au-delà d'être un commis de l'État fan la ci toll ak ki nga xamante ni moom mooy le chef de l'État donc euh, c'est vrai mais est-ce que loolu nekkati na tey exigence opposition bi am une personnalité neutre est-ce que loolu la ñu d'accord ci fi nga xamante ni moom mooy parce que ñëpp xam nañ le rôle bi nga xamante ni joué na ko dans l'affaire Khalifa Sall ñëpp gis nañ ko tamit mu monté au créneau dans l'affaire Karim Wade en tant que substitut mm. euh, auprès de la cour de répression de l'enrichissement illicite ñu gis ko euh, voilà mu amee benn taxawaay bu am solo boobu am xam naa ne président gërëm na ko moo mu jox ko porte ah, xam naa ne gërëm na ko sanction euh, sanction euh, ci li nga xamante ne nii mooy yenn euh, poste euh, hmm. ministériels yi. Hmm. yi nga xamante ne xëy na nit yi dañ ko doon xaar. Hmm. au contraire ce qu'on a vu c'est que ñu si bëri si ñoom ils ont même été confortés ci taxawaay bi nga xamante ne ci la ci la nekkoon. loolu tamit noo ko gisee. c'est la constitution qui confère au président de la république la possibilité de nommer aux emplois civils et militaires waaye nag gis naa sax kenn ku def benn texte mu ne le président. euh, ces choix ne sont pas discutables ma ne ko non nous sommes dans une démocratie mm -hmm. ces choix sont discutables mën nañu discuter choix yi waaye nag moom la dernier mot lui revient waaye dañoo jàppoon ne euh, par exemple mooy ñi nga wax noonu ne contestation yu métti jógoon na ci li nga xamante ni moom mooy euh, seen post yi mais peut-être qu'à l'arrivée il voulait trouver une autre peut-être qu'il n'a pas trouvé peut-être qu'il a cherché et qu'il n'a pas trouvé loolu aussi c'est son droit le plus absolu. merci merci beaucoup Pape Djibril Fall ñu dem seetaan publicité buñ ci noppee jàll ci xibaar.